Serigne Khadim Dieng ñu ngi lay ziare bu baax expert ngeen bokk ci commission sociale waaye fare ci wàllu recasement yi maanaam mooy mbokki taalibe yi nga xam ne nii da leen doon jëlee ci ay kër di leen yóbbu ci yeneen kër yoo xam ne nii da leen koo able boobaak léegi nag yàgg na situation liggéey boobu fan la toll li ngeen am doy na wala mbir mi loo ñu ci mën a xaymaal. waaw jërëjëf euh, sëriñ bi maa ngi lay ziare bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne laaj nga ko mu jëm ci situation yi nga xam ne moom la ñu dund jamono ji nga xam ne moom lañ nekk Euh, ndax kenn ku ne xam ne comme na ma koy waxoon ndox mi bi mu wàccee ba léegi am na ay dégâts yoo xam ne bàyyi na ko fi dégâts yooyu nag ba léegi mi ngi fi dara jógagu fi wala lu ci baree bari mi ngi fi am na loo xam ne ni wàññeeku na euh, kër yi nga xam ne nag moom lañ jëloon doon ci def ay doomu aadama kër yooyee moo jeex jamono ji may wax ak yéen yi nga xam ne yéen a ngi ko gis xam ne nit ñi ba léegi ñi ngi ci biir ndox mi te ñu nekk ci biir ndox mi taalibe sëñ Tuubaa lañ te yaakaaruñu kenn ginnaaw bi yàlla jàllee sëriñ bi képp lañ yaakaar taalibe sëñ Tuubaa yooyu nag ñooy dund dund gu metti gii nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi ñuy tàllal loxo mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi te yàlla defal leen ñu am taw féexi tabax kër tëj ko te màggal Tuubaa képp tax ñu koy jëfandikoo nañ geesu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw sonn nañ jaaxale nañ te gisuñu fenn foo xam ne nii mën nañ faa nekk ndox mi bari na yooyu bari na ndax kenn ku ne xam ne yooyu moom bu nawet bi ñëwee dañuy bari lool ba àgg ca lool te bari waaye googu muy bari nag bu fekkee ne am na yenn mbokk taalib yoo xam ñooy dund ak ndox mi mën naa ne duñ jug ci feebar loolu moo tax ñuy tàllal loxo lillaahi wa rasuli képp koo xam ne laal taalibe sëñ Tuubaa la nga dëkk dëkk bii nga am kër te tëj ko lillaahi wa rasuli ubbi ko jox ko taalibe sëñ Tuubaa yi ñu nekk ca nga jaamu ci yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax sonn nañ taxamuñu fenn foo xam ne dinañ fa jëm loolu daal moo tax kon buñ la déggee daal kër yi nga xam ne am na ñu ko jotoon a able loge ngeen ci ay nit ba mu mat sëkk te des na ñeneen ñoo xam ne itam dëkkaguñu waaw ndax kër yi euh, comme ni ma ko waxee woon jamono yi la ñu génn amoon nañ lu tolloog 23 24 kër yooyu yëpp jëfandikoo nañ ko Euh, kër wala gi nga xam ne fàggu woon nañ ko moom tim fees na dell daanaka kenn mënut a faa nekk kon nag li des mooy ñu fexe lancé waat appel woo waat taalibe sëñ Tuubaa yi lillaahi wa rasuuli képp koo xam ne yor nga barab boo xam ne daal nit ñi mën nañ faa suturloo nga ubbi ko jox ko taalibe sëñ Tuubaa ñu nekk fa ba jafe-jafe yi jeex ñu jële waat leen foofu yóbbuwaat leen fa nga xam ne fa lañ nekkoon